àndoon nañu ak ci nawaqidul wudu inda al malikiya ñu jàngoon ne yi firi njàpp ci ngiru imam malik ñetti xaaj la xaaj boo xam ne ay toj la ak xaaj boo xam ne ay sabab la ak xaaj boo xam ne du toj du sabab ñu waxoon ne toj yi mooy lu génnee ci ñaari génnuwaay yi yañ ca baaxoo moo xam tuur ndox la walla ngalawal wala dem joor wala wadiyu wala madiyu ñu waxoon ne sabab yi ñooy dañum xel moo xam ndofa ko waral wala mandite walla xëm nelaw yu diis moo xam woyof ah, nelaw yu diis moo xam gàtt na wala gudd na wala laal koo xam ne dees na ko foytu tabaan te jublu ca bànneex wala nga am ko ca wala laal sakara te laale ko biir tenq wala baaraam bu dee jigéen ñu ne wutee nañ ci ci ngir mi liñ waxoon ne du sabab du toj ñu ne ñaar la mooy murtad génn ci diina wal iyaazu billah ak sikk sàkk ñu ne sikk sàkk nag bu dee ndax dangay sikk ne eh, jàpp nga wala jàppoo gannaaw buum la leere na toj le nga kooku qataan da ngaa war a jàpp bu fekkee nag danga jàpp ba noppi di sikk ndax tojle nga wala tojle woo ci ngiru imam Malik tojle nga su fekkee jàpp nga tojle nga waaye xamoo bu ca jiitu naka noonu it tojle nga ñaareel boobu nga xam ne nag ci ngiru imam Malik tojle nga waaye ci ngiru jumhur doo tojle ci la ñuy duggee ci yenn wuute yi boroom xam-xam yi am ci nawaqidul wudu ndax jumhur dañoo wax ne al yaqiinu laa yazulu bi shakki lu wóor du dañee ci sikk sàkka te wóor na waa ji am njàpp ne moom jàpp na li muy sikk nag mooy tojle na wala tojlewut kon li wóor muy njàpp li ak sikk du ko yàq maalikiyatu yi ne dëgg la waaye julli njàpp lu wóor rekk lañ ca war a duggee te njàpp li ñu ngi sikk ndax yàqu naam yàqut duñ ca duggee julli maanaam duñ duggee julli ci njàpp loolee e, naka noonu bokk na ci masail yi nga xam ne dëppoo nañ ci mooy loo xam ne dafa génne ci ñaari génnuwaay yi wala benn ci ñaari génnuwaay yi ci anam ak baax lu mel ni sanguwaay mas yu wad yu dem joor ak ngalawal waaye bu fekkee du loo xam ne nag luy génnee foofu la ci baax lu mel ni sax wala doj kooku ci ngiru maalikiyatu du yàq njàpp lu dul nag mu génn ànd ak sobe bu dee nelaw yu diisit dëppoo nañ ci ne dafay yàq njàpp ni ko borom azubda euh, téere la bu nga xam ne boroom def ca tënk euh, waxi madahib al arbaa yi donte tënk gi sax des na nag euh, <clears throat> waaye téere bu am am solo la ci wàllu googule ki ko taalif ma nga dëkk fole ca eh, dëkk ba nu mu tudd eh, Sirajuddin Omar al-Hindi al <clears throat> téere bu am solo la su zubdatul ahkam fi madahibi al aimati al al a'lam bu dee maniyu wax naa ne <clears throat> moom it wuutee nañ ci ak laabam waaye maniyu dafay waral sangu moom romb na waralum njàpp dafay waral am sangu bu fekkee ne dafa génn ci anam yi nga xam ne moom la ko fuqahaa yu détaillé <clears throat> maanaa génn ci sëy wala génn ci bànneex wala génn ci li ñoo tuddee gént ndax sobe laam du sobe nag borom xam-xam wutee nañ ci waaye li wér mooy man yu du sobe ndax ci la yàlla bind doomu aadama te xam ngeen ne doomu adama la ko bind moom mi gën ci bindeefu yàlla yi mënta nekk sobe loolu la imaam Shafii wax rahmatullahi alayhi ak lenn ci borom xam-xam yi wala lu bari ci borom xam-xam léegi nag li nga xam ne nag dafa génn ci benn ci ñaari génn waaye waaye du loo xam ne lu fa baaxoo génnee la loolu mooy lu mel ni sax wala jàmburaay wax nañ ne wuutee nañ ci waaye ci malik yetu yi du yàq njàpp léegi nag li génn te génneewul ci ñaari génnuwaay lu mel ni wëcc walla bori wala deret wala dët gu génn ci benn ci sa euh, place ci sa yaram wi te duwul benn ci ñaari génnuwaay yi booba borom xam-xam yi am nañ ci ak wuute ku mel ni Abu Hanifa te nee bu fekkee la génn sobe la lu mel ni deret ak dëtt ak dëtt wànjar nee na dafay yàq njàpp su fekkee ne yol na jëm ci barab boo xam ne war nag laabalam nee na bu dee wëccu nag fokk mu nekk lu fees gémmiñ bu dee Malik ak nag nee nañ loolu du yàq njàpp te looloo bu dee imaam Ahmad nee na bu dee deret ju bari la bari gu ñaaw njàpp lu day yàqu su fekkee ne li génn ci sa yaram wi ci deret bariwul du yàq du yàqu loolu la imaam Ahmad wax bu dee da ngaa jàpp ba pare yow góor laal jigéen nag Abu Xanifa te ne njàpp li du yàqu alal itlaq mu ne lu dul na nga jonjoog moom jonjoo bu ñaaw maanaam nga foog moom lool Malik mu ne bu fekkee ne dang ca am bànneex wala da nga caa jublu bànneex ci lenn ci détail ci ngiram mi dafay yàqu bu dul loolu yàquwut lu dul nag fóonante lu dul foon ci benn ci riwaaye yi waaye li wér nday Aysatu wax na ne yonentu sallallahu alayhi wa daan na jàpp foon kenn ci soxnaam yi julli te du jàppaat li wér mooy laal jigéen du yàq njàpp moo xam am nga ca bànneex wala amuloo ko ca imaam Shafii nee bu fekkee ka nga laal nag duut sa euh, kojug armal mooy koo xam ne mën nga koo takk te amul benn diggale maanaam laaloo yëreem wala du ay gaa nga ko laalee jàpp la dafay yàqu ci bépp mbir am nga ca bànneex wala amoo ca bànneex su dee ci koo xam ne mënoo ko takk ci kojug xarmal la bokk nag muy say mbokk maanaam kojug xarmal jublu say mbokk moo mënta takk waaw kojug xarm koo xam ne mënoo ko takk mu ne bu fekkee ne <clears throat> ku bokkul ci ñooñu la nag am na ca ñaari wax yu joge ci imam Shafii naka noonu tamit ku ndaw lool ba duut koo xam ne dañuy am ci moom bànneex ci laal wala ku mage lool ba amatuñu ci moom bànneex ci laal kooku am na ca ñaari anam ci ngir imam Shafii bu dee ahmadu rahmatullahi alayhi imam ahmad am na ca ñetti riwaaya bu njëkk bi ne du yàqu bu ñaareel bi ne dafay yàqu bu ñetteel bu ne soo àndeek bànneex ci lay yàqu nim ñëwee ci ngiru imam malik bu fekkee nag ni aji jàpp ji dafa laal cëram muy zakaraam te laaleewut ko loxoom laaleewut ko uh, loxoom maanaam beneen cër ci cëram bi la ko laalee laalewu ko tenq ba muy loxo ba wala xasabu ba ñu ne ñoom dëppoo ni njàpp la yàquut su fekkee nag ne daf ko laale biir tenqam abu xanifata nee na njàpp du yàqu malik mu ne su ca malik wax na ne dafay yàqu borom zubdatu nag nee na malik daf ne bu ca amee bànneex lay yàqu shafii ne boo xam am na ca bànneex wala amu ca bànneex ahmad ñu jëlee ci moom ñaari riwaaya li leen wutale nag mooy xadisu man masa zakarahu falyatawadda ku laal sakaraam na jàpp abu xanifata nag ne am na hadis boo xam ne dañoo laaj yonantu ki ko laaj ne ko dama jàpp laal sama awra mu ne ko xanaa du cër la ci sa cër yi rek ñii ne bële dafa folli bi abu xanifata ne déeret bii dafay wane ne jàpp lu yàquwut bu bi mu wax ne na jàpp dafay wane dañ ko sopp rek moom jàpp na ne laal sa sakara moo xam ci biir tënk nga ko laale wala ci say baaraam jàppale du yàqu wuuteeg liñ jàngoon démb ci ngir imam malik rahmatullahi alayhi xaqataay abu xanifata nee na bépp julli gu am rukkoo ak sujoot boo ca xaqataayee jàppale dafay yàqu ñi ci des muy malikiyatu ak shafiiyatu ak xanabilatu ne njàppala du yàqu xaqataay ci julli julli lay yàq waaye du yàq njàpp bu de lekk yàppu gëlamit wuutee nañ ci waaye li gën a wér gën a siiw muy madhabul jumhur muy xanafiyatu ak malikiyatu ak shafiiyatu yi ak lenn ci xanaabilatu yi te loolu la kuréel ci salaf wax nee na njàpp la du yàqu xadis yi ca ñëw nag moo waral wuutee ga waaye jaabir nee na li mujji ci mbiru yonantu mooy du jàpp ci loo xam ne ndox soppi na ko maanaam safara soppi na ko wax na it ci ma xadis na said ibn alxaaris ne jabir ibn abdoulahi nee na yonentu sallallahu alayhi wa sallam maanaam <clears throat> eh, laaj na jabir ibn abdoulahi ci njàppul ci loo xam ne safara laal na ko mu ne daan na ñu ak daan nekkoon nañ ci jamono yonentu sallallahu alayhi wa sallam daanuñ gis loolu maanaam daanuñ am ñam wu mel noonu lu bari suñ ko amee nag amu ñu ay mouchoir yu ñu fompe fompo mu ne dañuy euh, dégg nga faxasu rek nuñ mën a fompo ci suñuy euh, tenq ak suñuy xasaboog suñuy ndogu ñu julli duñ jàpp ñoo wax ne dañoo war a jàpp nag ñu ngi ko sukkandiku ci hadisu ka laajoon yonentu ndax bu ma lekkee yàpp gàtt damay jàpp mu ne ko bu neexee jàpp bu neexee bul jàpp mu ne ko ndax bu ma lekkee yàpp gëlëm damay jàpp mu ne ko waaw jàppal waaye jumhur dañoo teg loolu rek ci benn muy jàppal ci anamuk sopp wala raxasul ndax jàpp bu luxatan dana firi raxasu li wér daal mooy jàpp waru ca waxtu waa ngi guddi mu ngi gudd ñu taxaw foofu di ñaan suñu borom defaral ñu suñu zaahir defaral ñu suñu baatin hada wa sallallahu ala sayyidina muhammadin